ninki nànk dañ koy dégg jamono jii surtout ñun ndaw ñi ñu dem ba di ci jouer benn théâtre ninki nànk tey boo ma ko doon faram fàcceel pour ñun ñi nga xamante ne dañ koy dégg nii ci théâtre lañu waaw ninki nànk boo boo ko dee dégg dooleem dafa supérieur doole jinne yëpp parce que jinne rab seytaane ñoo am mais ninki nànk mooy catégorie jinne bi gën a kawe waaw bu benn jinne doone juróom-ñaar fukki doole ninki nànk bi day double juróom-ñaar fukki doole yooyu waaw mooy xeetu ninki nànk du loo xamante ni bii yéen a ngi ko joué sax waaye mënu leen a gis ninki nànk bu koy gis ndax ninki nànk su la njëkkee gis dootoo ko nettali waaw li nga xamante ni su la njëkkee gis dootoo ko nettali yaakaar naa ni kooku nit du ko tara wër ba di ko gis. mais mu ngi am ba léegi. waaw mu ngi am ba léegi ndax yàlla may na ko bu bëggee bu meree jëmmi jaan ji lay indi. su fekkente ni bii kii nay jëmmi doomu aadama lay ñëwee waaw niveau bu ñaari niveau yooyu lay ñëwee. loolu moom kéemaane na. waaw parce que may-mayu suñu borom moo nekkee noonu jinne bu bëggee ñëw ci yow bu ko neexee jëmmi doomu aadama mën naa jël sax jëmm joo xam ñëw ba jataay yow bay dem ci ngay soog a ci la lay soog a xamal ne du jëmm ji mu jël. waaw mais su fekkente ni bii safaan ñëw na ci ñoom su leen neexee ñu doon tàkk-tàkk bu leen neexee ñu doon jaan su leen neexee ñu leneen.